ba yaramu direction générale des élections seddul dara ubbil journal bi di L'As quotidien ay xeer mi ngi jóge fu nekk di dal ci yaramu direction générale des élections Aliou moom li mu xamle moo di Tanor Thiendella Fall méritéwul ci siis bi nga xamante ni moom la toog dafa bëgg ñu dàq ci post bi nga xamante ni moom la nekk ndaxte tanoor Thiendella Fall ba mu toogee ci bopp direction générale des élections ba léegi doxalul li nga xamante ni moo di yoon tëddeewul njaaxaanaay awkaaw Sonko yi dañoo mer ba futt nee na mi moom duñ ko bàyyee noonu dañ ko yóbbu ci kanamu yu mag yi yi Ibrahima Seck ak Cheikh Tidiane Dièye ñoom nag ña ngay direction générale des élections nee nañ ko yow daal DGE fi nga teg sa tànk du foofu de yow ngeen soppi ka nag waaye nag waa direction générale des élections seen làmmiñ nekkul seen poos ubbil journal bii di Vox Populi yi Thiendella Fall ak i ñoñom ñoom nag expliqué nañ lan moo tax joxuñu ndaw Ousmane Sonko boobee di Ayib Daffé fiche parrainage yi li nga xam ne moo di tribunal jeexlagul atte googulee dañuy xaar recours bi nga xamante ni avocat état bi dugal nañ ko ca kanam cour suprême cour suprême nag bu attee ba jox Ousmane Sonko dëgg ñoom dinañ ko mën a jox li nga xamante ni moo di fiche parrainage yooyu lee Seydi Gassama ci biir Sud Quotidien ni yéen daal direction générale des élections yéen amu leen lu ngeen wax yéen pattuus moo leen war ndaxte li nga xamante ni moo di nguur gi loxoom bi nga xamante ni teg naka ci seen kaw dafa fës ñëpp teg neen seen yi gët ñëpp xam ne ni nguur gi ñoo leen lànkloo ni bu leen jox Ousmane xamante ni moo di fiche parrainage yi lee 24 a kaay ni cënd la faal mbaa moom deful lu ëpp laaj woowu daal la daal di samp cënd bokkum ci biir journal bi naan direction générale des élections communiqué bi nga xamante ni fësal nañ ko yeyul kenn te tegewul ci benn yoon le quotidien moom mi ngi tuddee fiche parrainage yooyu le fiche de la controverse ndax bëri na ay werante avocat Sonko yi ñoom nag li nga xam ne moo di juge bi ba mu joxee notification ni turu Ousmane Sonko ko delloo ci fichier électoral bi rek waa direction générale des élections dañu waroon décision bi ci parrainage yi lëmbee dëkk bi Amadou Ba di njiiti jëwriñ yi di candidat benn bokk yaakaar moom mi ngi amal li nga xamante ni moo di campagne électorale am démb ma nga réew mi journal bii di Dakar Time nee na mbir mi moom mi ngi ko soppi li nga xamante ni moo di campagne électorale ginnaaw bu mu yeggee ca bët gànnaaru mu jaar rek fu ci mel ne Ndar Ross Béthio Richard Toll ak Dagana teertu nañ ko comme ni ñuy teeroo buur moom nag pig na ci teertu googulee réew mi quotidien ne Amadou Ba moom ma ngay amal li nga xamante ni moo di campagne électorale am waaye nag am na ay dige yu bëri def na ko laas yéene ni Amadou Ba ba mu yeggee ca bët gànnaaru réew mi askan wa nga xamante ni ñoo ko doon teertu am na ay ñaxtu yu bëri teg nan ko si loxoom waaye Amadou Ba nag mi ngi dalal seen xel xamal na leen ni dina def kéem kàttanam ba bés bu faloo rek dina saafara seeni jafe-jafe yooyu le sport ak stade yéene yu weekend bii nag du yomb dara si gaynde yi Sénégal yi ndaxte ñoom nag dina soobu si seen championnat yi Sadio Mandé Mendy ci Arabie Saoudite ki di Iliman Ndiaye ak Ismaïla Sarr bu Marseille ñoom dinañ déplacé wu dem ca Nice Ismaïla di défenseur u gaynde moom nag li mu xam ne moo ni am na yaqin ni équipe nationale bu Sénégal mën nañ jëlaat kan bii di ñëw sunu lamb Modou Lo Ama Baldé tey si ngoon nan amal jàkkaarloo jàkkaarloo bi nag nar na tàng loolu ndaxte amaa Baldé mi ngi koy artu ci biir journal bi nee na ko yow Modou Lo moom nga sol di couronne bi moom laa bëgg foqati sa kaw bopp tekk sama kaw bopp Modou Lo li mu ko tontu moo di yow Ama Baldé bés bu nu xeexee dina la duma duma yu méttee métti ba noppi daan la ki ne war a duma kay mooy Moussa Baldé ubbil journal bi di Libération Moussa Baldé mu nga